li may wax li ci leader yi la jëm leaderu Sénégal dafa mel ne dañ leen a teg galaas yeewu leen seen nelaw yi jëlew fi Macky Macky Sall xeer tëjut bopp bi njur tëjut bopp bi te mel nu mag dane ma woon damaa gis sa fit gis sa taxawaay waaye dinaa la baaxe genn kàddu dee ko doxe ma ne ko lan mu ne ma ñetti nit bu dee ànd nga leen di xub da jàpp ñaar ñi reen di faseet keneen ki keneen ki foo ko joxoñ mu xam xam nga mbiru Cissé nañ ko bàyyee wax processus la ñuy wax ndax jaan bu dawee dugg ci kër doo wuti ci benn néeg ndax fépp la jaan ji mën a nekk Aly Ngouille Ndiaye moo war a dem luñ mayut Abdou Diouf mayin ko Ablaye Wade di magum murit duñ ko may ngóorus pël Macky lii mu bëgg duñ ko ko may na leer Aly Ngouille ñaara mën a nekk wala ñett na dem mbaanu dem mbaanu ànd dee dem gu ma la wax nag bakkan la laaj na dem mbaanu dem mbaanu ànd dee yii moo mën a nekk mais day dem parce que duñ ko ko may te wax géeg wër géeg yooyu nañ ko bàyyi te jublu ci xeex bi opposition bi nag bu dee parti politique mouvement bii ngeen di gis tey ay général guerre ñun dañuy joxe suñ bakkan deewoo ñu tax a jóg waaye du ay caaxaan man nag li may wax du bari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 war wadd ig la doomam jël xalifatu tëj xaaj réew mi jox jabaram bi xaaj mu jox ko rakkam buur yàlla mooy ay ci póotu mbóor idée ngi taxaw ñëpp jubla ko tey jii mënoo ci dara bourse familiale nga jël jagleel ko say militant ku bokkul ci APR bourse bii tey du ko ñam réew maa ngi dee wett baykat yi jaayu ñu ren jëndoo fa yoo bàyyi woo ku jënd ñëpp gëlëm wasalaamu